mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fii mooy Ngunjaan di askan woo xam ne ay askan ñu ëpp ci ñun ay askanu séeréer lañu ñu ëpp ci ñun ay taalibe sëñ Tuubaa ba ñi jokk ci yeneen euh, tarixa yi sax jaxasoo nañu ak murit yi ba nga xam ne doo xàmmee feneen fi ñu féete ngir cofeel bi ñu am ci sëñ Touba plus sëñ bi téeméeri nit yoo jël fii ci Ngunjaan téeméer juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent ay jullit lañu waaye ci jullit yooyu téeméer yoo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom yi sëñ Touba lañ yaakaar àdduna ak àllaaxira loolu jógewuñu ci beneen diine ñëw ci lislaam jógewuñu ci beneen tarixa ñëw ci murit dañuy juddu suñuy maam nekkoon ay ceddo waaye ay ceddo yu gore duñu moy yàlla duñu lekk lu lewul te bu ne woon suba dina taw lu ëpp yàlla dina taw ndax seen ngëm ndax seen yaakaar bi mu yaakaar yàlla yàlla def sëñ Touba moo ñu ci lislaam sëñ Touba moo tax sunu askan bi di askanu Ngunjaan dugg ci lislaam kon bés bu mag bii bi ñetti fan ci safar bërki démboo njaay lañ doon màggal masaalikul jinaan ci ñaari bés bu ay ñu màggal màggal bu mag mbàkke si boo leen ñëwee fii ngu njàng desalatoo leen ñu dara mbàkke si lépp loo xam ne Ngoundiane mës na ko def ci yoonu murit bés bii fay ngeen ñu ko Sénégal yaatu na juróom fukki commune juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom ñaar ngeen tànn ci néew boole ci Ngoundiane yal nañu yàlla fayal sëñ Touba. amiin maire wax na bu ñu soxla woon ndax bu ñu ñaanee sax ndox yu gaaw a ñëw ci loolu laay ñëw dafa amoon jamono foo xam ne ndox dañ ko iite woon lool lool lool ci nawet bi gàncax bi dem bay bëgg a bëgg a dee ñoom ñu daje fa ñu doon daje xam ne saa yu ma daje fa balaa ñu jóg foofu rek daañu am lu ñu bëgg loolu laa bëgg a ñëw foofu la yendu ba ngoon jot di waxtaan te buntu feeñul waaye benn waay bu dogu moo jóg ne leen yéen de dafa mel ni ndox ngeen bëgg ñu ne ko waaw mën a demee gis ne jeetaay bi yàgg na wax bi bari na te fii mu nekk nii fekkee ndox ngeen bëgg dama bëgg leen xamal leen fii mu nekk nii ku fi yeex rek danga nga tooy da ngay xuus ci ndox te ndam ko waxee wallahi noonu la ame ndax moo taxaw ne yàlla sunu boroom dënul mu daal di dënu ñëpp di dégg dënu bi mu ne ko sottil ma ndox mi yàlla commencé sotti ndox mi keroog ku ñibbi da ngaa tooy da nga xuus ci ndox ñibbi te ñu woon ay jullit kon dëggum moo leen mayoon loolu ñaareel bi am na benn gol bu nekk fii balaa nga egg si Ngoundiane yaa ngi koy gis fii ah sa sa camoñ nii foofu lañuy tuddee xan fa xan xan fa xan mooy xane fa xane loolu li mu firi ci olof mooy tey tey tey tey tey bu nawet mosoon digmal foofu la ñuy daje népp noo xam ne nawet bi noonu la war a mel bu ñu jiwee dugub keroog jiw ko gerte jiw ko lu mën a doon ci lu ñu aaju ci mbay keroog lay sax keroog lay mag keroog lay ñor keroog la ñuy xam nawet bi nan lay mel kon am na li yàlla jeeyoon na leen loolu amoon na li may wax ñi fi dëkk yëpp mën nañ koo seede mën naa koo seede waaye nag bi nga xamante loolu itam passé na ah ma ñëw itam ci jaa al xaq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqan sëñ Touba moo indi loo xam ne mooy dëgg te looloo sax te loolooy ndam li tey ñoom lañu ñu jàppoon donte gore woon nañ ba am la ñu am ca yàlla dañu woon ci tus loolu dafa mab dafa nen ndax Ngunjaan yaatu na fukki dëkk ak juróom la waaye mën naa leen xamal benn exemple bi may jël mooy misaal bi may jël ci Ngunjaan fii tey mooy pay bii nga xam ne Ngunjaan pay bi ngeen nekk fii ndax fii laa juddoo foofu laa yaroon waaye lépp lu moo wax fi beneen dëkk boo dem ci diiwanu Ngunjaan di nga dégg yu mel nii ka nga xam ne moo sos Ngunjaan pay gii ba mu faatoo ñu ngi ko suul fii maison de com maison francophonie bii ngeen di gis ci ginnaawam gendarmerie baa ngi foofu foofu lañ ko suul waaye foofu lañ ko suul ba ñuy tabax maison comme animation rurale bi te tabaxu ban la soxla woon ban amu fi yéen ci lañuy jëloon ci lañuy jëloon armeelam boobu gasaat ko jalaat ko suuf ban ci lañuy ñu kon kooku bu nekkoon ci dëgg tey foofu dañ koy warmaal di ko magal waaye amu ko dañu naan fii la ak fee la ak fee la looloo fi xewoon ak histoire bu rëy li ci xewoon sax kii jamono loolu amoon na fi ñu bëri laxasaayu nañu nag ñoo xam ne dem nañu liggéeyal sëñ bi ba am na seex yoo xam ne tey mun naa ne seex yu ràññeeku fe ràññeeku lañu fii ñoo xam ne liggéey nañ siñ Tuubaa bu baax a baax ndax su ma jëlee ku mel ni sëriñ ngañ kanji fii ci sew xaay kooku ñépp xam na ko fi ndax siiw na tuubal ni fi ñu bari te bari na fi ay taalibe lool buñ jëlee ki mel ni sëriñ Cheikh Sarr bee xombol am na ay taalibe yu bari ndax tuubal na fi ñu bari te ba léegi ay taalibe ñu fi boo jëlee ki mel ni ki mel ni sëriñ amadu Fall faran ca kër Farang Guèye kookam ci kàngam yi la yoo xam ne sëñ Touba leen gërëmal boppam te ku ci nekk def na fi jaloora kooku bëri na fi ay taalibe lool te loolu lépp diiwaanu Ngoundiane la. am na mag ñu baax ñoo xam ne itam dañu laxasaay woon ñoo jëlal seen engagement bopp dem laxasu dem liggéeyal suñ Touba ba am ngërëmam wàcce alxuraan wàcce xam-xam wàcce lépp ba ñëw tey daanaka boo tuddee seen tur ñu bari xam leen fii. ñooñu boo leen limee dinañ mat juróom-ñaar ci diiwaanu Ngujaan bii kon ñooñu yaafoo suñu ci yoon wi fu mu jëm Mbàkke Bari mu def Mbàkke ay weer waaye gis nga kenn du Cheikh Ahmed Bamba ci aw fit kenn du Cheikh Ahmed Bamba ci jom kenn du Cheikh Ahmed Bamba ci ngor gis nga alxemes bi nga xam ne bu bët setee di ajjuma ci la sëriñ tubaa war a génne mbàkke bari wala boog ajjuma ji nga xam ne bu ko sëñ tubaa jullee bët set di gaaw ci la war a génn mbàkke bari ajjuma ji sëñ tubaa amatul jot munta toog day bàggante ci xur wi di ñëw ci jàkka yi di dugg ci kër gi di génn di dem ci daara ja mel ni kuy séentu gan ba ñépp jaaxle naan sëñ tubaa mi am na ku muy séentu ndekete boobu moom nattu bi lay séentu heure bee jotagul rek sëñ tubaa ko lool sëñ Fallou nee na def naa mu ñeenti jataay ci bëccëg gi dajale ñu ni ñun ñëpp daara ji doom yi soxna yi waar ñu ci yàlla xamal ñu boppam ma diir mu ma man Cheikh Mouhamadou Moustapha ak moom waar ñu xamal waar ñu ci yàlla xamal ñu boppam bàyyi ceer na ñëw fekk yónni na ko ndar kenn du maam ceer kenn du maam ceer bi ko sëñ Tuubaa di yónni ndar yi at laa di xale bu ndaw mbub mi mu sol du mbubum waajtaay ndax boobu mbubbu yombut te am na sëñ tubaa ci ay mitit sëñ tubaa ne ko ceerno kaay demal ma ndar boo demee nga gisal ma borom ndar jox ko leetar bi te laaj ko ba xam moo nuy woon de mu mel ne tey jii donc nga daara bu jógee ci daaray tërbiya ñu ne ko kaa ñu yónni la ci président Macky Sall demal palais boo demee nga joxal ma ko leetar bi sans audience maam ceerno ànd ko fitam dugg ndar dem palais jàkkaarloo gouverneur général bi ñu ne ko kii de nee na Ahmadou Bamba ko yónni mu xool ko col gi doyu ko melokaan wi ni mel maam Thierno génn leetar na ko moo la ko jox mu ne ko teg ko ci palaat bee mu ne ko du ko def ki ma yónni nit man may nit yow mi ma la fekk si ngay nit ñuy ñetti jaami yàlla mu yónni ma ci yow nga yor loxo ma yor loxo seexlootuma la nga di ma seexlu soo tàllalul sa loxo ma dëpp ak moom gouverneur général ba tàllal loxo bi ne ko yow Ahmadou Bamba la ko maam Cerno teg fa haysuma taxaf ilaahakal ahad yaxaf ko min fawqihi kullu ahad sëñ Tuubaa nee bu ragal dee genn ragal ko yàlla soo ragalee yàlla lu ragalut yàlla dalay ragal maam Cerno dafa ragal yàlla maam Thierno dëpp la fekk ajjuma ji jeex na bañ duggi guddi ajjuma gi sëriñ Touba nag mënta a duggati ci kër gi bi mu jullee fajar ci jàkka ji jëmaat ci biir kër gi la tudd yàlla na sama borom nee na ma kër gi bu ma ci duggati fi muy toog di laaj ndax ceer Thierno ak seegut lañ ko ne leemu si ndax Sëñ Touba kenn du ko wax déedéet nee na ci seen ci leer gi takk leeru fas wi ñu ne ko maam noo ngi di ñëw bi maam Thierno yi ñëw di bëgg a wax sëñ Tuubaa daf a ne Thierno bul ma wax benn baat damaa yàkkamti ci takkusaan ba ngay wax ak tubaab bi sànq leen yi doon dox ci seen i tànk maa ngi koy gis Thierno damaa yàkkamti damay liggéey li yàlla njaboot gaangoo waaye na nga wéttili koo ñett na nga am jom wéttili yàlla te tegore nga am jom wéttili koo yàlla ca gore koo wétali koo ku dul yàlla bis dana ñëw nga wéet na boo amutu fit doo taxawal dara ceerno boo góorewut su la yàlla joxee nga fàtte say bokk Sëriñ Tuubaa wax ngelaw boobu kenn du Ahmadu étape bi mu njëkk def bi mu jógee kooki jeewal la jaar dajee lu mat juróom-ñaar fukki soldaar ak juróom-ñaar Sëriñ Tuubaa di kenn nit te soldat si bokkuñu ñii gendarme boo xam ne boo ko nee dama ne mu ne la xaar boo ko nee baal ma ak mu ne baal naa la bu julli jotee mu jàpp ne yow ngeen dem ci jàkka ji boobu yooyu néew fi soldat bu déggut wolof amu fi bàjj na fi nekkoon bëgguñu lislaam yàkkamti jëli bakkanam sëñ tubaab sëriñ bi dajeeg ñoom war ci ngelaw mbóom la bi tubaab yi dawal seen fas yi ba yéeg tund jeewal lañ dajeeg sëñ tubaab jóge ci xur yi ba yéeg tund wi ñu seen ngelawul sëñ tubaab yi ñu seen pelle weex ba jàmbaar ja ne ca kaw sol sama dooram ba tubaab yi ne taxaw leen ma nga nee di ñëw fas yu yàkkamti lool sëñ tubaab dawal fas yu ko wër leen dëkk taxaw ne leen kan moom moo ci yéen ki nu yónni daaw ba wër ak moom aw fasam na ko gouverneur général moo ñu yónni ci yow ca dalaa yàkkamti sëñ tubaab lu cëpp fas wa laaj ndox jàpp julli tàkkusaan def ay salaatu ala nabiam def ay baaxiyaat saaliaatam toog ci deram nag di di yàlla yàlla tubaab bi daw ñëw te loog na ko gouverneur général bi laa yàkkamti sëñ Touba nee na sans na ma defal juróom juróom fukki bismillahi rahmaani rahim ma jàng ko ba noppi mu ne ma taf la ko sab xar kanam bi ma wëlbati koo jàkkaarloog tubaab bi na ko loo wax mu ne dama ne kañ nga mën a dem sëriñ Touba ne ko ndigalul yàlla li ma jot mooy damay fanaan fii fitu sëñ Touba juróom-ñaar fukki soldaar ak nangam jël si la te soxna sa bakkan te ku ne yor fetal waxuma la nga yàkkante dem ca dëkk ba ba am wéttal waaye xuru àll bu toll na jeewal sëñ Tuubaa ne leen fii laay fanaan te yaar ñoom dong nga fay fanaan ñu wër la sëñ Tuubaa ne leen fii la ma yàlla jox ndigal fii laay fanaan sëñ Tuubaa fanaan jeewal bi mu jullee fajari jeewal ji la ne moo yee tubaab yi satt leen satalam ndox xam nga ne leen jóg leen ñoom ñëpp ñu dawandoo moo leen kunu wooñ ana yoon wi tubaab yi jiitu lañuy dab sëñ Tuubaa fas day da